opposé wu euh, nit kuy opposé wu nag ngir opposé wu kese mun na am da ngay opposé wu ngir ay mbir yoo xamante ne day soxal yow say bëgg-bëgg personnel te ñun loolu taxuñu jóg donc opposé ñu pour opposé dañuy nekk parti de l'opposition am idéologie am loo xamante ne moo tënk suñu parti nekk suñu charte parti ñu gëm ko di ko doxal sénégalais yi ñu si fekk jour bis bis bu nekk donc ci kaw loolu ñi nga xamante ne ñoom lañ jàkkaar loolu mooy ñi nga xamante ne ñooy nguur gi di ko doxal nekk ni soo xamante ni tam bi ñu fi nekkee ba léegi ñun gis nañu li ñuy doxal ak ñun gis-gis bi ñu am Sénégal bokkul moo tax jamono bu nekk ñu jël précaution bay bañ a jaxasoo ak ñoom mais aussi fexe népp lu ñu mënee gën a fësal suñu liggéey ñu koy fësal xam naa loolu moo tax nag ak taxawaay bu régulier bi ak constance bi nga xamante ne ñu ko am gars yi jàpp ne dañuy opposé nekk opposition radicale mais du question de radicalité. yaa ngi koy wax opposé leen pour opposé rek doo leen kuje boo xam ne lu ñu kii rek ñu ne baaxul waaye tamit jafe na ñu gis benn jéego bu président Macky Sall teg rafet lu ko loolu tamit ndax fi ñuy xaaree tam opposition républicaine ndax Pastef tamit laaj lajjul si wàllu woowu la. non xam nga sax du sax question di moom day def ñu koy topp parce que moom xam calendrier am am ci lu mu tegu am dossier yoo xamante ne day soxla askan bi yëpp. moom mu am ci gis-gisam ñu muy àndal di liggéey mais ñun aussi suñu président bi ñu àndal muy l'honorable Ousmane gis-gisam ak équipe yu mu àndal donc parfois na am point yoo xamante ne dañ koy am waaye day am yoo ne ñun ñoo ko siy jiitu yu euh, mu génnee ñoom balaa ñoo def communiqué ñun def nañ communiqué ba parti parti Pastef euh, euh, wax li nga xamante ne moom la gis ci mbir mi ak naka lañ ko war a aborder. mais bokkul gis-gis. non non gis-gis parce que bon ñoom ni ñu ko aborder ak ñun ni ñu koy gisee bokkul. parce que gëm nañu tey président la république warul mën a taxaw ñëpp di ko xool askan bi yëpp di ko xool ak waxu président ni mu amee doole ak impact yi mu mën a am yëpp mu taxaw ne ñun suñu ay ñooñ mënu leen jëli alors que yeneen dëkk yi fi nekk yëpp ñu ngi jëli seen ay ñooñ nan dispositif amu fi dispositif bu mën a accueillir ba 100 personnes ci système d'acheminement ak de mise en quarantaine yëpp am na fi ay professeurs yu am xam-xam matériel bi mu ngi fii hôpital Fann am nañu doole pour def mais ndax option bu Sénégal tamit euh, gënul yenn maana mooy taxaw doomu Sénégal yi nekk foofu taxaw leen si wàllum <coughs> pardon taxaw leen si wàllum xel taxaw leen tamit si wàllum koom di leen nemmeeku saa su ne ndax loolu tamit gënul am solo indi leen fii ak risque yu muy comporté loolu ba loolu yëpp ay solution la mais day woroog solution bi nga xamante ne moom la gouvernement bi jël à travers le président Macky Sall xam nga l'ambassadeur chinois bi mu génnee li mu njëkk a wax moo di leeral askan ba pare xam ni Sénégal mosu koo sollicité pour ñu jéem a xool ñuy indee ay doomam bu nekkoon Sénégal def na ko mun na am premier élément yi nga xamante dañ ko jox waajuru euh, euh, Sénégal yi nga xamante ñoo nekk foofu noonu dina jóge ci ay gis-gis ak ay procédés yoo xamante dañ koy jëlee si Chine parce que Chine am nañ moyen tey dimbale Sénégal mu xool nu ñuy génne doomu Sénégal yooyu mais ñoom dañoo tëb tëb def communiqué alors que séq sax ak ambassade Chine Euh, euh, ay tractation yoo xamante ne war na mën a tax ñu indi muy lu Chine rafetlu tamit parce que Chine nee na tax na ñu xam dëgg-dëgg xaritu Chine te sam Sénégal mu ne ko jàppee dëgg-dëgg xaritu xaritu Chine donc mel na ni kon stratégie président Macky Sall mi ngi porte ay nga Chine nekk tamit première puissance wala deuxième puissance ñu ngi koy naatable mondial oui mais ça n'a rien avec les questions sanitaires ñun dañu am ay doomu sénégalais yoo xamante dañu nekk à l'extérieur tey fii nii ay chinois bu ñu fi nekkoon am problème di nga gis dañuy di extirper léegi duñ ci xool xaritoo Sénégal wala jubóog Sénégal ni ku nekk nag foog nga am capacité ak gëm-gëmu taxaw défendre li nga xamante ne moom nga gëm mais ay affaire amitié yi c'est bien économie am na lu ñuy séq c'est bien mais doomu Sénégal war nañ leen mën a jëlee ni ñu jëlee ay doomu marocain ak et cetera mhm. ñun loolu voilà loolu ouverture rek la woon ñu wax si li nga nii moom moo lëmbee jamono mooy benn proposition bu soqeekoo si euh, kuréel bi nga xam te ni wala bànqaas bi nga ni moom mooy saytu lépp lu jëm si bopp moomeel lii du haut conseil des collectivités territoriales ñuy wax ne Dakar war na mën a am benn statut spécial boo xam ne euh, ki nga xam te nii moom mooy wuutu maire Dakar du nekk maire bu ñuy tabb waaye dina nekk benn kilifa boo xam ne daf fiy teewal nguur waaye dootul amati maire comme ni nga ko amee jamono ji ndax réforme boobu i tamit yéen jàngat ngeen ko at euh, Pastef na ngeen ko gisee. waaw man mën naa la jox sama point de vue parce wax ci. wala ñu xool yeneen voies yoo xamante ne am nañ ko pour mais man mun naa jox sama avis ci loolu euh, tey loolu dafa mel ni soxna am Aminata Mbengue Ndiaye la jóge comme proposition moom mi ngi bokk ci kàngamu parti socialiste yi kan la utu mi ngi utu Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng boobu yàlla na ko yàlla yërëm moo fi nekkoon jamono yi nga xamante ne maire de Dakar mairie bi nga xamante ne moom la ñuy wax di am ay jafe-jafe bi mu amee jafe-jafe Ousmane Tanor Dieng mi ngi en ñëpp gis nañ rapport bi nga xamante ne lañ jël wax ci loo xamante ne sax ñi def rapport bi waxuñu ko fexe nuñ ko taxalee ba jël ko dugal ko prison gaawantu procédure bi accéléré ko fexe nuñ ko démettre tey ñu jaat poste boobu si def fixation te fan yi rek dégg ngeen ni acteur u dialogue politique bi ñu ngi am consensus ci mode d'élection wu maire euh, euh, des communes yi donc tey naka lañ mën a demee si dialogue boo xamante ne ñi fa nekk ñëpp te moom Aminata Mbengue Ndiaye ma nga fa ak partem déggoo nañ ci naka la ñuy élire maire nga delluwaat tey def proposition boo xamante ne dafay ñëw di battre en brèche loolu nga xamante ne déggoo nañ ko ba pare donc dafa nekk loo xamante ne pour man amul benn sens amul benn sens waaw xaw ma ñoom lan lañ ci jublu mais amul benn sens. mais ndax du nekk tam benn avancée bu ñu xool Dakar 19 communes yi fi nekk bu si nekk tamit am ko autonomie yaa ngi wéyal tey jii dakaar euh, euh, mairie bu Dakaru est-ce que nekkul forme bee fi nekk rek mais dans le fond bu nekkee 19 communes yëpp pour si nekk lan mooy territoire mairie bu Dakar yëpp ay question la yu ñuy posé wu donc est-ce que warul carte bi gën a leer ba nga xam te ne nii léegi 19 communes yi fi nekk da leen di bàyyi ñu wéyal am kenn ku fi teewal nguur kii coordonné loolu noonu yëpp tout le temps bàyyee euh, ñi nga nii ñoom ñooy 19 communes yi seen autonomie. waaw mais xam nga tey autonomie dañ koy wax nii rek mais astreinte bu ko bëggee teg jafe bu ñu ko bëggee indil. ci liggéey la nga war a liggéey dañ koy def de manière très te xam nga tey jël nit maire président de la république mu mun ko nommer tabb ko xam nga ne tabb boobu du tegu dara loolu ci politique du tegu ci xam-xam du tegu ci gis-gis du tegu ci rigueur du tegu ci dara loolu par parloo ak caaxaan fan yee passé Aminata Mbengue Ndiaye bii di wax moom tax euh, président Macky Sall taxaw na fi ne noonu dafay compresser dépenses de fonctionnement wu état et ni amul benn njëriñ da koy effacer profité effacer non mu jël ko tabb ko foofu noonu donc nit la koo xamante dañ ko teg en poste pour moom aussi mu mën a servir ki nga xamante ne moo ko fa teg en relation servitude lañ am asservissement lañ am vis-à-vis du président Macky Sall aujourd'hui commune yi ko teg ko ci kaw day nekk di dogal di di tënk ñeen si li ñuy doxal Khalifa Sall daj na ko fii ci mairie nekk mairie de Dakar farul ak bëgg a liggéey ñu koy defal ay blocage bëgg na endetté wu ñu koy bloqué bëgg na man dama gis ne daal loolu non sens la vraiment te recul démocratique la te nekkul loo xamante ne war nañ sax mun a nekk di réfléchir. ndax da nga jàpp si ñi nga xam te ni da bokk si ñi nga xam te ni dañoo jàpp ne comme nguur gi bi mu fi nekkee ba léegi mënul fexe ba teg loxo si mairie Ndakaaru jaare ko si ay élection léegi dem nañ ba mënatun see jéenee noonu ñu ut beneen pexe. waaw loolu lool loolu loolu nit mën na ko xalaat mais am na sax yu gën a grave affaire yu mel noonu parce que tu sais euh, euh, président Macky dafa dàq ay élections locales. Euh, li tax mu dàq ko moom xam na ko élection boo si jógee nga gañe ko sa njëriñ yow mooy nga organiser élection locale lu mu gën a gaaw parce que nit yi am na fi yow lu mu gaaw gaaw gaaw da nga war a tënk ñu mën la voté laat mais li tax mu dàq ko xam na ko parce que il a été très mal réélu il le sait très très bien donc tey il faut mu ay solution pour fexe naka lay récupérer yenn yenn yenn yenn lieux stratégiques yi tey fu mel ni Dakar tey nga dàq ay élection gars yi comme quoi dañu war a nommer nit par décret am ah, amul sens en fait que ñun en fait bëgguñu di topp président Macky Sall si type de réflexion yooyu parce que loolu diversion la pour ñun ñun dañoo am loo xamante ne dañu ko war a proposer Sénégalais war a waxtaan mais mënuñoo ñëw tey vraiment di tëngu ci wax yi muy wax wax yoo xamante ne amul bopp amul genn vraiment ñu wax léegi si mbirum scandale au cœur de la république wax si mbirum yorolin bu seel ak yooyu euh, gis nañ ne téere bi mu génnee am na coow lu bëree bëri yu si judd ñiy jàpp ne kuréel la bu doon def liggéeyam di OFNAC ñiy jàpp ne singale la si ku mel ni Cheikh Oumar Anne avocat Maître El Hadji Diouf jéem ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekkoon enquêteurs yi wala boog ñi ko doon càmbar te itam Pape Ibra Kébé jiite équipe bi ñooñu dañu bëggoon laaj xaalis et cetera loolu amuñu ko Cheikh Oumar Anne yàq ndar am si loolu yëpp tey jii ak coow bu ñu jur na nga ko jàngate bon déjà euh, xam nga ñi def enquête yi souvent c'est des gens qui son sous le sceau euh, du droit réserve mais nag corollaire au droit de réserve mooy état mën a protéger ay ñooñam tey nit waru mën a taxaw biir Sénégal ni kuy def liggéeyam sérieusement wala en tout cas même bu ko def defuloon sérieusement am na ay instances yoo xamante ne ñoo ko war a mën a apprécier nga taxaw di leen saaga di leen dénigrer loolu dëgg du yoon parce que nit ki bu nekk bu nekk amoo droit wax dafa war a fekk état aussi da koy jox garantie wóor ci ñu mun ko protéger bu nekkee nit da koy attaqué muy benn de deux Cheikh Oumar Anne bi ñuy wax Cheikh Oumar Anne du OFNAC kese moo ko moo ko moo ko épinglé Cheikh Oumar Anne OFNAC épinglé na ko ARMP épinglé na ko cour des comptes épinglé na ko fan yii sax ñu koy dégg mu naan ay dañ bëgg dañu bëgg def di victimiser ay ma dañu bëgg def symbole de la malgouvernance Macky Sall mooy symbole malgouvernance moom mi nga xamante ne moo jàpp moom mi nga xamante ne ñetti rapport épinglé nañ ko mu jëlee ko fu mu nekkoon promouvoir ko mënu sax deux structurer deux phrases yoo xamante ne dafa jub en français pour promouvoir ko kala remplacer ma gën ko compétent téeméer nekk mi ngi nekk professeur assistant nekkul maître maître de ba léegi Cheikh Omar léegi ñu bëgg nag tey muy victimiser et cetera Macky Sall aussi moo fi jël ku ñu wax Mamour Diallo mu def benn gaaf boo xamante ne en une année Cour des comptes ak IGE jàpp ko si benn luubalul 38 milliards en 2014 mu jugee foofu promouvoir ko mu jugee cent moo mu jugee 38 milliards dem si 94 milliards donc c' est pour dire que loolu nañ yëpp le principal responsable le seul unique responsable d' ailleurs le président Macky mais si mbirum OFNAC bu ñu si ñëwaatee président Macky Sall dafa jàpp ne OFNAC dafa dugg si loo xam ne nii du këram. nda tey jàpp na ne OFNAC corruption ak yooyu la war a lijjanti waaye bu demee bay lijjanti loo xam ne ni sax euh, conseil d'administration wu COUD mu ne ko lijjanti loolu tamit OFNAC dafa dugg si loo xam te ni euh, kenn laaju ko ko. non OFNAC liggéeyam la doon def bon déjà si ridicule président taxaw ak dossier fu mu toll président taxaw di si prononcé pour man loolu bon c'est manque de classe quoi et manque d'élégance parce que président institution la dafa war a respecter boppam. moom am na ay ñoom yoo xamante ne daf leen tabb fal leen jox ay responsabilités jox leen ñuy liggéey askan bi bu nekkoon sax def nañ lu dul yoon bu nekkoon def nañ lu dul du moom moo war a taxaw génn di ci wax c'est pour dire un peu euh, accointance ak euh, collusion yi nga xamante ne ñu ngi am ci yenn dossiers yi quoi tey c'est parce que Cheikh Oumar Anne et son ami c'est parce que Cheikh Oumar Anne est membre de l'APR que moom président la République dafa war a génn ak li muy représenté bëgg taxaw parce que moom la ñuy jam après moom la ñuy jam gestion am la ñuy wax moom la ñuy naan moom mooy promouvoir euh, mal gouvernance donc yoon la tamit moo déggoo lu mu moom moo koy promouvoir. parce que nit dafay luubal luubalaat mu promouvoir la nit luubal luubalaat mu jël la làq la biir palais nit luubal luubalaat comme affaire seen la gis ne xew ki fa nekk la jël yóbbu ko ministre de l'énergie pourquoi parce que ñi nga xamante ne ñoom la àndal ñu prouver seen ànd ak moom ci xam nga naka lañ koy prouver ci capacité def ànd ak moom di si ay def-def bu ñu ànd ak moom si ay def-def nag si lay jël après leen promouvoir donc moom mooy symboliser mal gouvernance te mënu fee wax défendre fi kenn. kon président Macky Sall plus ngay def ay gaaf plus ngay def ay jaaxum mu promouvoir la moom. Macky Sall c'est le chef suprême la malgouvernance waaye bu ñu xoolee tamit diggante Pastef euh, OFNAC suspicion yi bari na ñu ngi jàpp ne am na ay accointances yu nekk diggante OFNAC Pastef ñoom ñoo leen di filé yenn information yooyu suspicion yooyu na nga koy gérer est-ce que comprendre ngeen ni tamit suspicion yooyu ñeen ñi am. non damay dalal seen xel si benn affaire bu nekkee nag lañ ko yaakaaree mbir yi gën naa yaatu loolu fépp fu sénégalais nekk bépp institution bu sénégalais nekk bépp instance bu sénégalais nekk ba pale laa la wax am na ay patriotes su nekkee dafa yàpp ni eh, nag mooy joxe information loolu dafa ndaw dañ jàpp ne information ñu ngi koy jëlee fépp parce que bépp patriote bu nekk Sénégal gis mbir ñu koy def loo xamante ne nekkul ci intérêt Sénégal da koy dénoncer fépp fu mu mën a jotee nag waa Pastef parce que ñu ñoo porté combat bu mel noonu koy jox donc c' est pour dire que ne en fait mbir yi gën naa yaatu ñoom fi ñu koy waxee yemul ci of nag kese APR sax am na ay patriotes la preuve Thierno Alassane Sall si ñoom la nekkoon ñu ko bëggee signé benn contrat ak Total boo xamante ne doxul si intérêt Sénégal dafa démissionné. mais tamit est ce que tamit baal ma pour dire que Sénégal yi gëm Sénégal gëm ni Sénégal ñëpp ci war a jàpp mu dox ñu ngi fii di doxal nga nekk biir APR foo mun di nekk foo di nekk patriote la. mais patriote d' accord mais bu nekkee ni yéen parti d' opposition ngeen opposition bi dafa nekk dans les règles de mais bu nekkee ne tamit ay institution dañ fi nekk war a def seen liggéey am tekk bu si war obligation de réserve ak yooyu ñu leen di jox ay information si suuf loolu tam lu dangereux si république bi ñu nekk. république bi du pa opposition kese moo war a nekk dans les règles de l'art war a nekk dans les règles de ñëpp war a nekk en conformité ak les textes réglementaires ak lois yi nga xamante ne moo organiser mode de fonctionnement d'organisation et d'exécution des missions assignées à ces institutions là ñëpp war a nekk dans la norme président nekkul si norme àndal ñu si aussi nekk si norme. voilà donc ñun aussi li ñuy def dafa leer nañ la preuve bi ñu yoree dossier 94 milliards yi on a bossé dessus pendant huit pendant huit mois bi ñu toppee Sénégal yi topp ñoo génne leen preuve génne leen preuve génne leen mais on a refusé parce que xam nañu ñun suñu cër ñuy génne ay documents publics di ko teg mais yéen a jiñaate mais mais ma ñëw mais ma di génne ay documents di topp bànneexu ñenn ñi mais li ñu intéressé mooy ban levier la ñuy activer ba justice bi nga xamante ne doxul mu dox donc lu topp benn benn mais dañuy def loo xamante ne mooy jëriñ grande majorité yu askan bi c'est comprendre mhm. donc ñun loolu moo mës a nekk suñu taxawaay léegi nag bu nekkee nag dañuy yaakaar ni fi lañ jëlee fi lañ jëlee fi ñu yaakaar noonu yëpp dafa ndaw am na fu gën a yaatu fi ñu jëlee muy Sénégal bi yëpp dañuy jëlee institution moom la Sénégal soxla jamono ji opposition boo xam ne nii euh, dina puiser fépp information même bu nekkee ni tamit comme ni ma la ko waxee xam nga yaa ngi wax sànq obligation de réserve ak yooyu ndax tamit waroo leen njëkkee si sàmmal ñi nga xam te ne ñoo loolu seen cër du question sax puiser mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mission bu ñu def def mission du mission première am opposition dafa war a nekk koo xamante ne da ngay saytu di xool ñi fi nekk da nga war a nekk koo xamante ne da ngay nekk da ngay am lu ñuy wax force de proposition maanaam am gis-gis ci doxalulu mbir mi. mais yéen li ngeen di dénoncer moo ëpp li ngeen di proposer. même bu nekkee ne président Sonko jënde woon na téere tuddee ko solution. non xam nga boo nekkee koo xamante ne suba ba ngoon mi ngi fexe nu mu luubalee alalu askan bi suba ba ngoon mi ngi fexe ñi ma àndal. ay fonctionnaires yooyu dañu fi gis ay fonctionnaires yoo xamante ne salaire yi ñu am 3 millions 5 millions xëy di may ay milliards bépp fonctionnaire bu nekk Sénégal bu nekk Sénégal di xëy di may ay millions ay milliards da nga sàcc xaalis bi loolu loolu mooy wax ji en réalité léegi nag ñi fi nekk yëpp di coow. bis bu nekk di mais loolu lu fi yàgg la ah? mën na fi yàgg mais xam nga ñun jamono jamono bi ñu bokk fekkee ko ñun moom la ñu mën a waxee tey Macky Sall la yàlla teg fii muy gérer moom ak ñi mu àndal ñuy gis ñuy luubal. donc li ñuy ba nag ñun si loolu lañ mën a indi suñu suñu suñu suñu kàddu léegi nag mbir mi comme que gars yi dañu naan dénoncer dénoncer non dénoncer c'est bien te du fi mës a jóg parce que nga lan moo tax ñun dafa am document dafa am dafa am ay mbir yoo xamante ne kenn mënu koo le ci benno benno am na loo xamante ne foog nga jébaane parce que loolu stratégie la ñu yoruñu levier wu état yoruñu doole état yoruñu militaire yoruñu xaalis yoruñu budget yoruñu dara donc lu ñu mën mooy jël ay dossiers di ko teg la place publique pour mën a astreindre ñi nga ne ñooy gérer ñu gën a regardant ci li ñuy def. parce que fan ngeen di jëlee seen fonds maître El Hadj Diouf euh, <laughs> war na fi lu ne ay euh, force obscure ñoom ñoo leen di jox euh, seen financement yooyu fan ngeen di jëlee seen financement. bon fan yee passé man def naa benn vidéo maa ngi ciy wax ne ñun ci élection yi bañ nañ wëpp 5 milliards te cinq milliards bi ñu koy bañ man maa ngi toog est-ce que lu sax 5 yooyu am na sax yenn. fonds yoo xamante nit ci dañu koy proposer en contrepartie de ko mës nangu. comme yan exemple. non mais du jeex jaruma si dugg ay détails parce que aussi bon am na loo xamante ne ngeen di rejeté tey financement bi njëkk am. parce que tamit li exercice la boo xam ne di yéen rek ko war a def parti yëpp war nañ ko def c' ko def. mais yéen yéen ngi forcé aussi exercice boobu ñun ñun suñu dañ ko siiwal ñëpp di dégg dañu am financement bokk naa un jàll na actuellement ñu ngi bokk naa de am benn document bu ñu rédigé bu tudd FI man document boobu bokk naa ci ñi nga xamante ñoo si liggéey financement yi bi ñuy def ñun financement participatif lañ def c'est-à-dire aujourd'hui on a 552 communes on a 45 départements yaa ngi comprendre ñun dañuy am benn système de collecte de fonds au niveau national boo xam dañu ko teg au niveau de la diaspora aussi on a un maillage qui est qui est qui est qui est ba pare avec des points focaux des représentants qui travaillent pour le parti qui chaque fin de mois collecte de l'argent qui reverse au parti moo rappelé beneen affaire képp ku bëgg ay information eh, si si si si xaalisu Pastef boo demee ministère de l'intérieur ñun ñooy parti bi nga chaque année ñu déposé fa suñu état financier suñu état financier déposé nañu donc c'est pour dire que ñun li ñuy def yëpp on le fait dans la lisibilité dans la transparence hmm, par parfois ñu am benn événement qu'est-ce qu'on fait dañuy taxaw ne ñun dañu am événement bi comment est-ce que le parti peut peut peut financer ñu am loo xam dañu koy jël ci kees gi teg ko ci kaw table bi mais am loo xamante ne ay bonne volonté yu nekk si kii bi parce que aujourd'hui suñu parti am nañ fa ay menuisier am nañ fa ay ouvrier am nañ fi mais aussi am nañ fa ay haut cadre aussi ku si nekk am capacité ñenn ñi yoo xamante ne ñoo xam parti bi jaral na leen ñu jaay seen bien ñu joxe ko si parti bi. gis nga donc ñun xaalis bi nga xamante ne moom la jël di ko manipuler. état bu nekkoon am nañ ci virgule boo xam nga ne dal na suñu kaw bu yàgg. 2019 seen collecte yi euh, ba ngeen ko xaymaa ñaata la parce que présidentielle bi tamit. Euh, bon présidentielle bi dafa mel ni euh, lu mel ni cent soixante dix huit ou cent soixante dix milliard millions lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci dépensé léegi xam nga loolu c'est de l'argent collecté bu ñu dépensé waat mais am na ñoo xamante ne dañuy yéeg seen oto yëpp seen ay ñi. Mhm. fayal seen bopp carburant topp convoi yi. man par exemple def naa ko dem naa ba Mbour ànd ak mu Mbour dem ba Fatick guddi gi ma war a xëy suba dellu si waat Dakar loolu yëpp financement la boo xamante ne. kenn yan financement ngeen di bañ pour toj chapitre boobu. c'est que tey dafa am dëkk yu bëri yoo xamante ne boo bëggee xaalis xaalisu financement du terrorisme xaalisu blanchiment la ñuy jël di ko dugal ci parti politique yi pour ëllëg ki nga xamante ne moom la ñuy fal mu redevable luñ ko wax mu def fuñ ko xooloo mu xool xaalis boobu bëgguñu ko bëgguñu xaalisu lobby yi bëgguñu xaalisu bépp xaalis boo xamante ne day jóge ci ay nit yoo xamante ne wala institution wala organisme yoo xamante ne daal dafa lëndëm ñun xaalis boobu duñu ko laal incha allah voilà léegi ñu wax sa affaire 94 milliards yi gannaaw bi plainte amee euh, Ousmane Sonko porté plainte devant le procureur dem si doyen des juges porté plainte woowaat woowoon nañ ko sax déglu ko Mamour Diallo tamit porté plainte jamono ji fu dossier bi toll ak ndax jàpp nga ne fu mu toll nii euh, dina am issue bon issue issue dina am euh, li ñuy def nii yëpp diversion la rek ay procureur nee na lii bi nee na laa procureur bon ñun on le disqualifie d'office parce que procureur moom ci boppam ay centaine de rapports ñu ngi si kaw table am yoo xamante ne def ci dara ñaari rapport yi mu gën a bëri lu mu wax ñaari dossiers yi mu gën a bëri lu mu wax dossier Khalifa Sall la ak dossier euh, euh, Petrotim yaa ngi comprendre fan yee passé yëngal nañu fi affaire dossier euh, Petrotim ne noonu dañuy def enquête dañ xool kan moo kan moo fuité rapport beeg yooyu section de recherche def na def na enquête am ba pare nañ publier conclusion yi duñ ko mës a publier nañ publier conclusion yi parce que yi ñuy wax yëpp ay waxu tappale la ñun nekkuñu fii loolu tax ma ne la ñun nekkuñu ñoo xamante ne dañuy topp ñu leen suivre parce que très sincèrement ils sont pas sérieux te lii pour def diversion la ak perte de temps parce que li ñu ñuy nëbb lan la sàcc bi ñu nekkee ak tappale bi ñu nekkee mais affaire 94 milliards yi tamit lu jar a leeral parce que lu mel ni 94 milliards nu jiñ ko benn nit ne moom moo ko luubal ñu waxoon sax ne 46 milliards yi sax jot na dem euh, si benn compte et cetera loolu lu jar leeral la. mais dama lay wax xam nga dañ ne woon 46 milliards yi bi ko président Sonko di wax mooy dernier euh, meeting bu ñu defoon avant campagne bi. place de la nation 46 milliards yi ne 46 milliards sax xam naa ban banque ak ban compte la nekk mais fan yii passé ñu gunge nañ ko mu dem seen TV le 31 décembre nga lu mu wax foofu. nee na 93 des 94 milliards ont effectivement été décaissés rapport commission d' enquête parlementaire la la waxoon na wuloon ni 2 milliards 5 la ñu moom il a dit 93 milliards yi fay nañ ko te rapport u rapport rapport u OFNAC wax na ko c' est que en fait dossier la boo xamante ne daf leen gêné ñoom ñëpp li ñuy def nii kon non-lieu bi ñuy wax euh, ruumandaat mën nañ jàpp ne si lañ jëm bu nekkee c'est pour noyer la tappale la communication la pour nax les masses non-lieu mënul am si dossier bi man j'ai fait une note ci dossier boobu noonu génne disposition code pénal yi wax ci affaire détournement deniers publics article euh, génne euh, les dispositions de la loi 66 67 ak le décret d'application et cetera et cetera le nom du directeur des domaines est cité explicitement dans ces lois-là. Mamour Diallo. oui mais kii wuutu moom setal na ko. kan Mame Boye Diao setal na ko. non Mame Boye Diao na wax gaa yi fan la jëlee xaalis mi financé gars yi bu fi am ay millions de da nga ko na def attention na def très attention ci euh, euh, ci signature yi nga xamante ne dañ koy monnayer rétro commission yi na ko moytu bu baax isen commande moom c'est quelqu'un qui veut exister fi mu nekkoon ak fi mu nekk léegi leen différence kese la am fi mu nekk fa la suuf nekk fa lañ koy joxee on l'a à l'œil ñu ngi koy xool mi ngi doxal mi ngi wax wax bu bëri nag kenn mosoo ko xam wax boobu noonu fan yi lu nekk mu ngi ci dugg il est dans toutes les sauces Sonko na def liggéeyam te yàgg nañ ko dégg jamono yi Sonko nekk euh, inspecteur des impôts et domaines sax moom moo doon jël si débat yi di ko di ko di ko tontu. parce que tamit jàppoon moom naataango. mais on l'a plus le raisonnement technique dans le sérieux dans les débats dans la consistance dans l'argumentaire mais fu mu nekk nii il parle de tout et de rien du moom moo mën disculper wala mu seetal Mamour Diallo Mamour Diallo ko mën a disculper wala mu seetal ko justice la. justice bi dossier bi bu kenn bu kenn fàttali dossier bi 94 milliards ñun ñoo ko génnee teg ko ci kaw table. mais boobu ba léegi ñu leen di laaj preuve. bu ñu ko génne non preuve bi joxe nañ ko preuve boo tax ne juge d'instruction bi ñu woowee si lañ dem yóbbu ko déjà daf ñu bi ñu déposé foofu moo gën a première plainte bi ñu déposé procureur dañ ko détaillé carrément mais par par contre loolu c'est secret mu ñu continuer plainte bi ñu confirmé ko mu def est-ce que yaa donc c'est pour dire que lu ñu war a def yëpp si dossier bi def nañ ko procureur bu doxaloon heure dossier bi dépassé nañ ko vidé nañ ko mais parce que doxul ñu jaar par le doyen des juges pour activer justice pour justice def def liggéeyam dossier la boo xamante ne jusqu'à preuve du contraire daf leen euh, ñoom ñëpp takk nañ ci parce que au-delà même de ak ñun li nga génne nañ ko mais CENTIF CENTIF instance organisme la euh, dafa sus euh, dafa suspect moom dañ koy relever te moom am nay dossier am nay kii dossier 94 milliards bi of na kii seen def liggéey na ci amul benn conclusion rapport bu fiy génn te du incriminé Mamour Diallo amul. donc bu nekkee ne euh, y' a beaucoup d' impliquées dans cette histoire est ce que mën na mën na aboutir donc est ce que duñ ko noyer dans l'œuf comme nu mu nekkee nii tout porte à croire que sinon lien lañ jëm. non xam nga yaa ngi nii dañ ko sàcc. Euh, ñu ngi bëgg a jël di wax ay faire proposition wu mairie Dakar yu nommé ko par décret alors que principe bi c'est l'élection état lu mu bëgg a def loolu moom la engagé ak gars yi fi nekk mais ñun suñu rôle mooy songu leen jàmmaarloo ñoom ba li nga xamante ne mooy justice li nga xamante ne mooy yoon li nga xamante ne moo méngoo ak suñu waaw règlement wu dëkk ñu teg ko si yoon léegi nag bu nekk ñun dañuy bëgg nooy la place dañ ko def mais en tout ñun ba preuve du contraire incha allah moo lu ñu dara si dossier bi suñu dossier la ñoo ko génne bu ñu ko génnewul mun naa am benn Sénégalais du ci wax. voilà mais yow Sénégal bi ngeen di wax est-ce que moom la Sénégalu grande puissance yi gis parce que grande puissance yi ñu ngi buuxante jamono jii di ñëw Sénégal euh, Chine mu ngi gën a fësal rataxaay diggante moom ak Sénégal puissance économique la. Euh, États-Unis seen secrétaire d'État bi barki démb la fi jóge euh, Canada euh, seen premier ministre ñëw na fi lu yàggul mais ay accords yi ñuy signé ñuy gën a wóolu Sénégal ndax Sénégal bu amu bu nekk woon dëkk boo xam ne ñu ngi teg ay jéego si wàllum yorolin bu sell si wàllum xeex wàllum guerre ak yu nu mel grande puissance nga xam ne yooyu dañ si ubbi seen i gët bu baax dinañ fi ñëw. non au contraire Sénégal indice de perception de la corruption bi nga xamante moom la dëkk yu mel ni États-Unis gën ba léegi. donc tey bu ñu. mais loolu depuis dix ans bu amee bu amee mbir yu changé. oui mais quand même depuis ans d'accord mais Macky Sall il a eu sept ans pour changer pour changer pour changer la tendance parce que bi muy ñëw fii dafa am lu ñu digoon. muy digoon bu nekkoon def na ko tey au moins am na dinañ am ay amélioration ci côté boobu muy benn euh, tey grande puissance dafa am benn rencontre bu Trump sa am ak certains présidents africains lu mu leen wax ne leen que personne ne compte sur bu kenn yaakaar ci man ma ñëw di dimbali sa dëkk man sama intérêt dëkk moo may indi ñoom war nañ xool. lan la grande puissance yooyu gis ci ñoom ba dëkk bi attractif yàgg nañ fi demewul nii mais Macky Sall ni muy gérer dëkk bi ku ñëw mu jox la fan passe dégg nga ko mu taxaw euh, ne euh, lépp ne dëkku Afrique yi coono sonn nañ son boo xamante ne am nañ ay jafe-jafe yoo xamante ne képp ku ñu gis mu war a ñëw di investir dañ ko war a jox lépp noonu la ko war a jëf dañ ko war a jox lépp kenn la ko xamante ne en fait taxawaay bu mu am bu mu war a am su ko amoon dëgg dëgg dëgg dëgg non loolu attractivité lay waxee yéen dëkk taxawaay bu mu war a am dëgg dëgg dëgg su ko amoon am na yenn dëkk yoo xamante ne dañu fi ñeme ñëw mais tey bu ñu fi wax waxu ressource naturelle ak Sénégal richesse yi fi am yëpp ni mu toll mais ku ci nekk il normal nga uti nga jégaani uti mais moom moo waroon def responsabilité ci mbir yi bu ko defoon responsabilité bu mu war dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñooñu am nañ ñëw de mais risque bi am dafa am du demee noonu. donc kon ñëw bi fi jiitu réew yu mag yi si àdduna bi ñëw ñi siy ndam ñi siy ndam nekkul ndam lañ si waroon am mais dañ si waroon toog xalaataat bu baax la moo leen attiré. ndax dafa fekk ne. ñoom dañuy ñëw pour puiser suñuy ressources dem wala. mais mais investissement la tamit. mais ki fi mujjee muy président Erdogan bi fi ñuy après bi ak Tosyal yi nga dénonciation yi ñu ci defoon. si fer bi si fer bi. loo xamante ne Sénégal mën na ci amoon affaire yu mën na si am lu extraordinaire finalement ci ci ñàkk ci lu bëri lay mujjee euh, mu ngi wax mi ngi diggee emploi contrat boobu dafa nekk contrat boo xamante ne day xeex wàllu em day xeex wàllu emploi la boo xamante ne dafa nekk en porte-à-faux avec euh, les dispositions du code général des impôts ay avantages ay facilités yoo xamante ne ñu ngi koy defal société boo xamante ne c'est une société étrangère. mais mais ndax tamit bu nekkee dëkk la boo xam ne dafa bëgg a attirer ay ay investisseurs ay investisseurs. Euh, code pétrolier bu njëkk bi sax balaa ñu koy modifier gisoon neen aussi daroon attiré bu baax a baax investisseurs yi pour ñu ñëw def recherche parce que tamit euh, Sénégal amoon jumtukaay yooyu ndax tam si wàllum attractivité nekkul stratégie bu baax. yombalal ñi am te ñooy jóge biti réew. mais xam nga loolu dafa am nu ñu koy organiser. tey yombalal nit pour mu ñëw sa dëkk jël nga signé ak moom benn contrat boo xamante ne day léegi sa dëkk moom mu ci am li muy am dem parce que xam na Sénégal si am chance pour defaru wala mu yàqu ba la tey bu ñu ñëwoon di ñëw suñu dëkk dañuy jël exemple Bolivie dañuy am ay contrats yu ñu signé comme yi nga xamante moom ñu signé action ay contrats yu leewoon ay contrats yoo dara baaxu si mais bi ñu demee ba ci biir seen président dafa xëy benn jour ne il faut ñu renégocier ba pare six mois daal may gars di bañ jóg daanu menaces yi puissance étrangère yi wax ñëpp wax mu dëgër fu mu dëgër rek mais à l'issue des six mois gars yi ñëw à la place de négociation ces contrats sont passés de pour cent à 50 et plus am sax yoo xam ne pour cent après la si askan bi am donc c'est pour dire que nit war nga mën a accueillir nit parce que yow technologie mun na am amoo ko hmm. doole pour yenn investissement yi amoo ko d'accord mais aussi dafa a am contrepartie bu dëgër ñu am si ay revenu mais aussi def transfert de technologie mais aussi fexe ba doomu Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi affaire yu dans le secteur de l'énergie depuis des années ñu am loo xamante ne nañ ko nañ ko nañ dëkk bi am nay chômeurs yoo xam ne yaa xam te leen mu wax rek ñu nekk si réseaux sociaux yi di ko bekki di ko corriger yooyu ñu bëri jàpp ne bi mu wax chômeurs yi waxul ak chômeurs yi nga xam ne liggéeyuñu mais yenn politiciens yi la doon waxal opposants yi wala boog ñi nga xam ne ko may fu mu yàqee nangam nàkkam yow loolu bi nga ko déggee nan la def bon xam nga wax boobu bon wax boobu amul benn solo sama gis-gis vraiment amul benn sens euh, bon président di waxee noonu xam naa da ko wax noonu rek détendre ñi mu nekkaloon noonu pour foog ñoom gars yi détendre atmosphère gars yi retaan ak yooyu mais chômeurs yooyu muy wax mais chômeurs yooyu moo leen dig un million d' emploi yaa ngi ba pare dem signé contrat social boo xamante ne mi ngi permettre société boobu personnel mu mun ko mu mun ko ko jëlee bitim réew est la koo xamante ne dafa nekk di loo xamante ne moom moo ko créé pour man loolu manque de sérieux la ci irresponsabilité la donc c'est des choses yoo xamante ne ñun sore wuñ ñu mënuñu see sore daal. laaj bu mujj bi lan mooy problème maître El Hadj Diouf ak Sonko. bon maître El Hadj Diouf man yaakaar naa ni amuñu ak moom benn problème moom su amee problème ak Sonko xam naa peut-être li mu doon wooyee boppam député du peuple far yàlla sunu waa ji géemoon nekk nekk ci kawam député du peuple mun naa am loolu la am na sax yenn raison yu gars di joxe mais maître dafa nekk koo xamante ne bon man sawaruma trop di wax ci moom daal sawaruma trop di wax ci moom parce que dëgg-dëgg ñun ci moom doomu sénégalais la mi ngi liggéey liggéeyam ni mu koy liggéey sénégalais ñu ngi koy gis am na foo gars yi positionné nga xamante ne ñoo koy jël aussi muy nekk seen avocat xam nañ leen donc ñun amuñu lu ñuy wax ci moom ñun. jërëjëf amoon nañ mbégte dalal la. merci beaucoup Diallo merci infiniment. jërë ngeen jëf yeen doon topp dig leen daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.